waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, sëñ Fallou Mbacké Jumaada moo dellu siwaat di ndokkeel sëriñ bi di ko sant di ko ñaanal ci barkeb sëriñ Touba toogaay bi mu toog toogaayu sëriñ Touba bi tamat ko sëkk te ñëpp doyloo ko ñëpp yaakaar ko yàlla ko ci defal ndam ci barkeb sëriñ Touba ba àggale liggéeyub sëriñ Touba bi fa mu bëgg mu àgg fa mom de taxaway bi mu taxaw rek la wara taxaw tay taxawé nako kon melena tay lepp tey Kaduk leer na kaddu bopum gaa ngi noonu su fekkone la wara am amna na gi du jog kaddu cheikh Basiru du jog kaddu seigne modlo du jog du jog du jog ba serigne bi ak lam wax wax ak ñom nam ko wara wax ak ñom fekkone la amut bu kon ñak gëm amut kon la serigne bi wax fofa la wax waaye nit ku baadoo la du jub gàcce wàññeeku mukk tàggut ca gàcce ga tey nag leer na nañ ñi xam nañ ne ci caay-caay lañ nekk xam nañ ne ci jubadi lañ nekk te it sëriñ bi leeral na ko waxoon naa leen ne sëriñ bi fu mu toll mi ngi wax li mu war a wax lépp mi ngi koy wax ci waxtu wa mu ko war a waxee ak fa war a waxee dégg ngeen mu wax ne lépp wax yi ñu ci waxaat yépp dégg na ko lépp lu xew dégg ngeen dégg ngeen ne ma ngi koy dégg ma ngi koy xam sëriñ bi dara du yitteem lu nga xam ne moom la ay waajuram ak ay baayam ak i maamam dénk mu xëy ci suba di ci gont di ci bëccëgu di ci fanaan loolu mooy yitteem loolu nag ba noppi sëriñ bi di umbule xew kon kenn ku nekk day naan sëriñ bi xamul li xew dégg nga ko waxal ci waxal boppam nee na li xew lépp xam naa ko yëg naa ko ba wax yu mujj yi mujj waxaat yëpp dégg na ko xam nga baadoo la weesuwut kilifa woo la nga naan sëriñ bi daf maa daf ma wooyee maa teral sëriñ bi daf laa digal tera la te loolu nag moo waroon tudd teraanga yi am teraanga weesuwut loolu nekk ci loo wër te nekk sa kilifa yëg ne nekk ci li nga war a nekk mu woo la boppam mu naan ji wikkaloo la daf woo la suturaal la wax ak yow li mu wax ak yow kenn yëgu ko nga wax ak moom la nga wax woon génn soppi wax ji wax ci yeneen wax loolu mooy mbaadoo la pire waaye sëriñ bi nag waxam ji la ma leen waxoon ne sëriñ bi dafa yaru sëriñ bi dafa am xam-xam sëriñ bi dafa bari teggiin sëriñ bi dafa mën a maslaa waaye nag ku la boo dégloo waxtaan yi discours fi mu tàmbalee fu sore la ko tàmbalee ba agsi waaye gis nga bi ma agsee ci war war leen tudd daf leen tudd ak doole wax li mu war a wax nag wax ko ni mu ko war a waxee te nag teg na ci ay tëkku ak ay xuppe yoo xam ne mi ngi ci kanam su fekkee xam nañu dara dañ dégg wax sëriñ bi su fekkee xamuñ dara nag dañuy dem ba dal ba dal ci kaw loolu te day jub rek la wax sëriñ bi daal loo wax lu may jub yaa ko wax waaye moom waxu ko ci la nekk ci la nekk loo ñëpp ñi màndal la sëñ bëggoon yàlla bëgg ko yonent bëgg ko sëñ Tuubaa bëgg ko nekk ci ba jóge fi ay ña ko fi jiitu woon jaar ci baag si ci moom foofa rek lay tànkam kenn mënu koo féetale fenn fu may foofu lii nag mbir la moo xam ne bii sumb la boo xam ne ñoom ñi ko sumb xamuñ fu njëw moom mbir la moo xam ne du sotti mukk ci àdduna de su ko seetaan kenn du ci noppi kenn du ci toog li ci war lépp danañ ko def ak nu ko mën a defee su fekkee moom mi nga xam ne tekkiwul dara ci woon doonu ci dara ak tobbalagu ci ñëw dong moom mën a ñemee taxaw def ñii di defi xalifa bi di defi murid yëpp su boobaa dana xam ne sëñ tubaa ngi fi kaddu sëñ tubaa ngi fi te du fi jóg sëñ di waxoon na ne keroog ba muy tas seen murit di nee na woon yet wi rey jaan ji mi ngi nii ñu teg ko fi mel ni ku teg fi rek jeneen ju génn ñu rey ko moom itam noonu lañ koy reyee nañu reyee jaan jooje ak yee ko woon yëpp te képp ku nekk ci jubadi na nga xam ne dëkkoo kenn sëñ tubaa nga dëkk sëñ tubaa nga dëkk de tey day tey eh, nañu xam ne day képp koo xam ne sëñ tubaa nga dëkk de sa jël dana gaaw te daan te daan nag sullu lësi yu bari sullahul jalil sullu salilin fawqahu kullu salil képp koo xam ni kii sëñ Tuubaa nga dëkk de yàlla nga dëkk te yàlla li mu ko dëkk ku nekk ndongu tax suuf moo ci gën a néew ca mbir ma mbir ma lay dal te day ah li wér de yow man kaam jéem jëm te sëñ bi tudd na ko lu fa waay yóbbaale lu may ak jub da ko réccu de tallaahi lay sa yan faxu sax su xadaa xayru xend xuloo daram si xeer bi xuta nit ki de buñ koy dugalee ci bàmmeel lu mu fa yóbbu ak jub dana ko rëccu léegi nag li fi nekk mooy ñaari yëf rek moo am ànd ak sëñ Touba jëfe ndigalam ànd ak sëñ Touba nga def la neex waaye bul tuddee bul tuddoo nag am murit liñ dul nangu daal mooy muy def caay caayam yi ba noppi di tuddoo sëriñ bi loolu moom kenn du ko may kenn du ko may sëriñ bi nag li mu war a wax na ko wax na ko waxin wu leer dégg ngeen li mu wax dégg ngeen yi mu ko dendaleel yëpp mu wóor leen tey bu lislaam doon atte nga sëriñ bi da koy jàppal mu ñëw ñu dagg ba bi waaye nag comme lislaam àttiwut ah sëriñ bi lim man mooy wax li mu war a wax nag wax na ko te nag su ko neexoon tam mu faj kook doole nag waaye moom nii lay doxee nii la fekkoon ay kilifaam di ko doxee moom it noonu lay doxee kon ma bëgg rek xel yëpp dal ci ne yoon suñ tubaab yi dégg ngir sëriñ bi kenn mënu ko yàq rawate nag ku yàqu ku yàqu nag bu waxasu ki defaru sax mënu koo yàq wow ma la ki yàqu kon nag nañ ci dal xel bu baax xam ne li wérte fi jaaroon bari na waaye leen lu ci nekk da ko teg ci yoon lam ci war a wax mu wax ko moo mu wax mu wax ko ko moo leen moo yilif murit yi ñoo ñoo ko waxal seen bopp kenn ku nekk bi ngay ñëw ci yoon wi kenn wóor kenn daawa am na ci waaye dian ya amu ci amul campagne amul dara kenn ku ne yaa ci bàyyi sa bopp bàyyi gi sa bopp nag mooy da ngaa wax loo ma digal ma def ko loo ma tere bàyyi ko mu digal la yàlla digal yonent bi digal Sëñ Tuubaa digal la ko teral li la yàlla tere yonent bi teral Sëñ Tuubaa teral la ko léegi nag yaar yooyu moo nekk sa diggante da ngay def mbaa nga bàyyi soo bàyyee nag bul boole sa bopp ci yoonu murit wi nag tey nag kattan nekku fii de gumay kattanu sëriñ bi kuy daaleewu kuy kuy tëggoo ko fëggu la nga yor sëriñ bi la ko jox sëriñ bi nag nim nim nim la ko joxee euh, sëf de moom moo gën a yomb moo gën moo gën a métti moo foog sippi ndax sëf moom boo koy fokk sa ñaar loxo ci ànd sippi nag da ngay jàpp ci ba rek ñoddi moom de bu neexoon sëriñ bi yooyu yëpp du ko ci fekk moom naa joxe ndigal de bu dee ci saahir ñu faj ko ba mu jeex takk bu dee ci baatin waxaale wu ma ko kon nag murid yi dégg ngeen waxi sëriñ baa ngi noonu loolu nag amul lu wàndal amul lu ñuy gaaral amul lu ñuy saraa wax ju leer nañ ñi la jëf rek moo fi nekk mbaa bàyyi seeb laa de ba mu joxee ndigal li fii te am naar nekk fii ci Mbàkke ne moom moom boppam Mbàkke kenn moomu ko moom li moom yi day jaay yëfam seeb laa nee bu leen xeex ak moom bu leen ko dóor bu leen ko def dara waaye digal naa bépp murid nag lépp lu muy jaayati mbaa lu ci moom na ngeen ko fa romb defe naa bañ ko defee diir ba mu dem ba xamante ba mënatu dem laa réew ñëw ko dellu si kon nag murid yi maa ngi leen di wax ne mbooloo moomu bokkuñ ci yoonu murid sëriñ bi digal na leen lank nañ waññeeku di transféré wax sëñ bi di ko def leneen léegi nag yéen murit yéen a ci def nag sëriñ bi digluwul kuulóor kenn sëriñ bi digluwul ko xaañ kenn sëriñ bi digluwul ko xas kenn waaye nag am leen fayda ju toll ne nag ngeen bàyyi ko fa nag ni fi bàyyee sëriñ bi ni mu fi bàyyee digal sëriñ bi ngeen bàyyi ko fa ak mboolem ko ànd ak moom nag képp ko xam ne kii nag yaa ngi jëflanteeg moom di maslaanteeg moom nag kon yow waxi sëriñ bi daf laa ñor waaye bu la waxee sëriñ bi daal képp ko ànd ak moom na ko fa ne ñukk bul waxateeg moom bul jëflanteeg moom daraati ndax bokku leen fu ngeen jëm te it ginnaaw bokku leen fu ngeen jëm nag mun leen a ànd ñaar ñu bokkul fu ñu jëm mënuñoo ànd kon li wér daal mooy sëriñ bi moom dégg ngeen kàddoom léegi leer na ci murit yëpp kenn ku doon wax naan lii lii ñu wax sëñ bi waxu ko sëñ bi ko ak loolu mu naan sëñ bi dafa maa dégg ngeen sëñ bi li mu wax kam joxoon ndigal di di Saliou Thioune la ko waxoon ma nga nañ jaar ci yoon wi nañ jaar ci yoon wi diggante Cheikh Béthio ak sëñ Saliou kenn nekku ci waaye ñun ñii fi des nag liñ man mooy teg suñu tànk ci siraatu mustaqima noonu mu ko waxee nañ ànd ak sëriñ bi te déglu ko fa sëñ bi jëm ñu jëm fa loolu muy wax nag naan université baag gàmmu gaa nga yooyu yëpp noo nga xaar ci kanam bu fekkee ne maanaam yoonu murid wi sëriñ bi digle tere mu ne li sëriñ bi tere dana ko def su boobaa noo ngi toog di ko xaar na xam ne day nun day sëñ bi du dañuy déglu sëriñ bi rek waaye am na foofu nag bu fa àggee murid yee koy fajal seen bopp duñ ci xaar kenn ba gàmmu ga du gàmm gi wax na ko woote na ko noo ngi xaar su boobaa dana xam ba xam ndax Sëriñ Tuubaa am na fii ñu ko fi nekkal wala amuñ ñu ko fi nekkal wala moom moomee nga xam ne ci caay-caay dong la nekk ànd ak mbooloo moomu ak ñi koy jàppale ndeg ba xam ñoom ñu ëpp doole Sëriñ Tuubaa ak ëpp doole mbooloom Sëriñ Tuubaa mi ba tax li sëriñ bi ne bu mu am mu mu ne dana fi am su boobaa nag bañ ci àggee feek teguñ ci bët du ko mën a gëm lu boobaa nag booba noo ngi fi noo ngi fi nun de sunuy euh, Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne yéen euh, saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine saxaaba yi nag ba ñuy taxawal diine ñoom seen deret lañ jaayoon ak seen bakkan su boobaa nu itam nag lum jaar dal na ko jaar yoonu sëriñ Tuubaa wi daal sëriñ bi kafu ci kafluwu ci nu itam duñ ci kaf duñ ci kaflu képp koo xam ne kii ne dégg nga baatuk sëriñ bi ba noppi di wax leneen nag su boobaa yow it danañ xool sa mbir booy la ca mbooloo moomee kon nañ góorluwaat ni ko sëriñ bi waxee tegu ci jub déglu sëriñ bi bu diglee ñu def bu teree ñu bàyyi képp koo xam ne kii bu la sëriñ bi digalee doo def nag bu la sëñ bi teree doo bàyyi ñu xam ne yow génn nañ la sëñ bi nee nañ la sànni ca sën ba ndax ndax ndax sën murit de bañ koy defee sëñ bi laa dane woon sën moom lu bon rek lañ fay sànni kon nag nañ nañ nañ nañ leen jël sànni leen ca sën ba loolu waxin la mooy nañ leen teg nee buñ leen boole ci sunu dara nag lépp loo xam ne ni nag yëkkati nañ ko ngiruk reewande ak bëgg a weddi sëñ ak bëgg yàqal su boobaa njabooti sëñ baa ngi fi taalibe yi sëñ baa ngi fi te dañ koy faj kon bokki taalibe yi lii lu bees la loo xam ne lii day loo xam ne lii day buñ ci taxawut man mën naa indi leneen te nag yàlla moom dafa jàpp na ngeen jàpp na ngeen na ngeen jaar ci ci ci siraatal mustaqima mooy mooy ci sabila mooy yoonu jub bi waaye nag bu leen topp subul yi ñàll yi sëñ Tuubaa nee na aw ñàll nag moom aw ñàll nee na soo ci toppee la la ngay mujj rek mooy fu fuy fii rek fuy fii rek fuy fii rek ci gànnaar de am na ñoo xam ne ba leen sëriñ bi jàngal ba leen sëriñ bi ba sëriñ bi jàngal ak jub ba te fekk ñu ngi jóge woon réer sëriñ bi dafa toog ba guddi mu taxal lu mat mu bari taal ko mu def ci bu bu mag seen bi di tàkk ca kaw xamuñ lu ci sëñ bi jublu ñereeroon bañ seen tàkk-tàkkal ba ne sàkk-tàkkal kata nga ne nañ ci wuti ba xam ba ak see ci guddi nuyoon teg sëñ bi ba noppi sëñ bi ne lu leen gindi ñu ne ko sawara wii de moom lañ seen gindee ko mu ne bu ëllëgee yomal xiyam itam kuréel ku ne sawara lay gindi kuréel ku ne sawara lay gindi te seytaane de waxoon na ne sëñ Tuubaa ma lu ma la dara de yow de jéemal naa la wet gu ne ma lu ma dara waaye nag yaa ngi nii bëgg dem waaye na nga xam ne de sama mbooloo danaa ko booleek sa mbooloo boo liggéey danga seen mbooloo moo xam ne mama la ñuy doon àndandoo doxuñ sax waaxuwuñ dañuy daw te ñoom ñëpp man la ñuy tuddoo te ñoom ñëpp sawar lañuy sawar la ñuy gindeekoo lii nag mbooloo mbii nag menn la ci tey it nag buñ ci taxawut day gën di yokk rek kon nag nun murit yëpp nañ ci taxaw am fayda ju toll ne lii sëriñ bi bëgg tam leeral na ko ci làmmiñ ñu dégg ko ñu daal di koy defee ni ko sëriñ bi bëggee képp koo xam ne gis nañ ne ndigalul sëriñ bi ñoru la ñee itam bu luñ yor buñ la boole ci sunu dara buñ jëflanteeg yow ci dara suñ su fekkee mën nañoo dund loolu nag te it nag buñ leen may itam ñuy tuddoo murit nag nañ tuddoo leneen lu leen neex nañ ko tuddoo sëriñ bi nee na ku ne am nga liberté waaye nag liberté gi rek bokku ci nag nga fekk nag yi fi jàmbur nga bëgg koo tuddoo nag ba noppi nag la borom bëgg ci ko def kon murit leen baax dellu siwaat dellu siwaat leen xam ne noo ngi ci axiru yu ban yu yu yu bon yoo xam ne dañoo am ñu lëkkool ci suuf fas yéene yàqal lislaam ji wet gu ne jaar nañ ko nag mu të léegi nag ci ndaw si lañ ko bëgg jaare ndaw sii nag saytaani rajim la te it buñ sàgganee ñu bari da leen ndax bëgg njariñul àdduna ndax mbooleem nga koo ci dégg muy wax wax ji lu bari bari du dëgg gëmu ko alali àdduna ji rek moo tax mu di ko def te àdduna amul solo day jeex day jeex yow mal ci lañ jëm kenn ku ci nekk war nga am looy bàyyi xel te xam ne sëñ Tuubaa bi dañ ko yaakaar ngir yàlla ngir yàlla ànd ak moom mu digal nu lu leer nañ ñi tere ñu lim ñu war a tere ñëpp ko xam kon nag li ci des mooy tey teylu la ku ca ànd ku nekk yaa ko tey sëriñ bi di yëkkati na kàddoom dégg mu ne sëñ Basa ngi nii toog sëñ Modou Lo ngi nii toog loolu wax ju leer nañ ñi la te nee na narut woon a wax sax daa waroon a bàyyi naroon a bàyyi ndax wax li ci baax moom boo koy wax mu am njëriñ waaye dana am njëriñ de mbàkke wax ji dana am njëriñ de ñu ko war a dégg danañ ko dégg de ñu ko war a dégg nag moom sëñ bi jëriñu sax bàyyi waale xel ndax walaa kena ak saranaasi joo gis ci laa moo ca tegu walaa kena ak saranaasi joo gis laa moo ca tegu ñëpp ci nit ñi mom moom ke duñu baax laayaf xaxoona laayas kuróona laay uminuun non la ko topé ba alquran jeex ñi gëna néew lépp lo gis ci aduna mu am fi ci lu bax ñi gëna a ko def kon nañ fokk bokk ñi gëna néew ñooñu rek badaal islaamu khariban wa sayoodo xariban khariban wa fa tuuba lil khuraba l'islam bi ñëw dafa tumuranke won lool dana wat nak ci tumuranke waye nak bu boba ñi nara taxé moy ñi ànd ak l'islam ci tumuranke goge moy yoonu murid wi nak kon nañ gor gor lu wat bu baax jàpp ndigalul serigne bi lii dañ ko effacé mu jóge fi ba bu ëllëgee képp ku ko saxeel xalaat nga xam ne du sotti moom day moom da royut kilifaam nga ndax kilifaam nga de ba mu ko waxee ne da koo seexal te seex bas mi ci ànd ak murid yëpp taaw ci moom day bañ ko waxee daf naa wax ne ba teg naa ko fi suuf ndigalul sëriñ bi laay def sama ceexuk bopp gi sax bu ko neexee ma daal di koy tekki moom de bu fekkoon ne li muy wax dëgg la ci moom bi ko sëriñ bi joxee ndigal ñaar du ci bokk waaye li mu wax dara du ci dëgg sëriñ bi wax ak moom wax secret digal ko tere ko mu génne di wax leneen ba jëf ji jot bu jëf jotee noo ngi fi toog fii di ko xaar su boobaa su fekkee dafa am kàttan dafa am doole dafa am ñu lekk làqu ci gannaawam nañu xam ne yoon yu borom ko yoral boppam te du ko seetaan mukk kenn di ko yàq rawatina jigéen yoo xam ne jëmut fenn ak góor ñoo xam ne ji wóor ne li ñuy wax du dëgg ci ñoom ñoo ko tey waaye nag yàlla ñu yàlla suturaal def ñu dëgg dëgg taalibi sëriñ Tuubaa déglu waxi sëriñ bi te di ko jëfe wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf